monde ne s'est pas fait en un jour. su fekkee da nga bëgg xëy rek bëgg rek ni jimet takk. ci studio lañ ko saa waay dinañ la ne yow xaalis bi ngay fonctionner foo ko jëlee. ba ne serait-ce que ñu tudd immédiat tudd ay journalistes tudd Abdoulaye Sylla rek c'est un problème. kon war nga maa xas yow. da rëy si ñun. dëgg la. Hmm. mais xoolal gis nga toi tu es une battante valeureuse. ndax loo mënti tàmbali taabal bi la penda di tooñe boo ci loo def ci sa jom def ci sa liggéey mhm. te bañ ku la ger te xam naa ne doon nangu it ku la ger ci yenn procédé yu dëppawul yoon mais bu ëllëgee d'ici quelques années si on te voit dans un truc comme Sénégal 7 ça ne pas étonner les mhm. dañ naan ulay mu ngi ci procédure buy liggéey te bu boobaa wallahi alazim ku la laal di nga gis ñëpp ñoo xamante ne c'est des gens qui sont avides de tax a jóg ne leen bàyyi leen ulay maane mii def lu metti parce que moom ci liggéeyam la nekk te amul dara lu muy reproché boppam. waaye yow bëgg xëy rek yenn tur yi rek. ñu di ko boole maanaam ci sa gestion ne serait-ce que émettre le nom c'est un problème. Mm-hmm. boo demee ba yow benn sañ-sañ benn ligne bi munoo ko am. journaliste bi xëy na ci ni ñu ko bëggee mooy dëgg-dëgg dans l'équilibre ça n'a rien à voir la chronique que nous faisons parce que loolu suñu point de vue bopp la ñuy joxe mais ku ci demoon bay gérer sa média da nga am noo war a tëddee sa waay c'est une règle d'or dans le journalisme mm-hmm. mais bu fekkee benn côté ngay féete yaa ngi dawal ci yenn oto yu dul jeex yaa ngi ci benn immeuble de luxe mais on se demandera fan nga ko jëlee ndax ñoom ñi fa ñu nekkoon di liggéey muy Youssou Ndour ku mu mënti doon dafa ramper ba am li mu am nii tey xëyul rek am benn propriété boo xamante ne saa waay li yàlla xam doy na nanu waxante dëgg buñ dee journaliste te neexuñu deret te ñun bëgguñu ku ñu laal ndax ku ñu cof ñu jóg boo laalee journaliste rek ñun ñëpp suñu xol yi day tànk. Ousmane Sonko cof na keroog de ci concours général. non mais parce que li li mu wax c'est-à-dire que c'est une vérité vraie gis nga euh, euh, euh, Penda bu ñu bëggee résoudre le problème qu'on ñun suñu bopp ñoo war a critique ci suñu bopp. ñu war a critique ci suñu fonctionnement man damay d'accord ne aujourd'hui l'État du Sénégal soutenez des groupe de presse qui sont sur les réseaux sociaux yi nga xam ne ñu ngi def liggéeyu yenn médias yi traditionnels yi war a def te defuñu ko loolay dëgg mais moom it sortem bu nekk doo doo rate presse bi de Ousmane Sonko presse bi bu ñu defee lu ñu war a wax bu ñu leen war a wax dañ leen koy wax presse bi duñu yàlla du ñonent ñun duñu yàlla du ñonent pend bu ñu defee lu dul yoon dañ naan lu tegu leen ci mais ndax war na tout non est-ce que dafay tiire ci yéen est-ce que du yéen c'est vous qui êtes susceptible. wax na benn yoon dégg nañu. <laughs> non mais day wax ba keroog ñuy comprendre. on doit pas être susceptible on doit être des gens yoo xam ne nous sommes ouverts aux critiques dama ne état bu Sénégal convention yi bloqué nañ ko bu ñu saytoo li ñuy saytu ba pare nañu ubbi convention yi nanu ko jox ñi ko yellool ñiy liggéeyal askan bi loolu laa gëm. yi dañ ko téye ba tey. nañu jàppale xoolal non wallahi il ya mois des médias dans ce pays. pour man c'est des médias qui doivent émerger. il faut beaucoup pour la population sénégalaise. bu kenn joxul kaddu ci yeneen ni télé yi amoo possibilité boobu boo demee ci ñoom dañu lay jox kàddu te askan wi dañoo soxla ay nit ñoo xamante ne même bu dee c'est des idées yoo xamante ne maanaam converger wul dans le même sens ñii dañuy gisee nii ñii gisee ne ñii féete ci politique fii ñii féete ci politique ne n'empêche ko loolu mooy dundal. terrain médiatique. d'accord mais ñiy tegu ci yoon. Mhm. te nga xam ne bu ñuy daw di wuti financement banque pend dañuy sonn bay bëgg a dee pour ñu am ko ay nit toog fee di la duuti pikiir nga ñëw tey ba am ay coow loo xamante ne yow mu ngi day ne màggalum Tuuba nga bëgg nit ñi lijjantil la ko mais saa waay fexeel ba raxas sa der ba mu set ba yow sa crédibilité duñ ko mettre en doute bu boobaa on pourra en reparler. c'est important Oulaye sa gis-gis ci problème média yi mais euh, tamit mami il faudrait pas que comme ñuy comme ni la ko peine de poser ñu mettre nu mu ñoom ñëpp ci benn panier faut savoir que Maïmouna Ndour fay problème bu mu am c'est vrai que ni am na problème impôt mais ça n'a rien à aujourd'hui problème bi nga xam ne moom la nekk di dox non non non je précise que j'ai mmh. dit que le mmh. truc de Maïmouna Ndour Faye mmh. j'ai eu des bribes d'infos et li may wax nii ce n'est pas que pour Maïmouna ou encore le groupe E-Media je parle de manière ñuy def ba taxaw yenn boîte ak yenn maison de fii ci réew may Maïmouna Ndour Faye non seulement dañ dafa dañ ko jox fréquence LCS te bi biñ koy jox fréquence LCS dafa am loo xamante ne moom la digge woon ak ñooñu fay xaalis ba ba def 60 million la ca des defe naa ci li mu dawal yépp ci ci année yi ci mujj lam ca dugal matul 40 millions ñooñu topp ko ci li nga xamante ne moom mooy yoon gagné ko première instance fi mu toll nii gagné nañ ko fi nga xamante ne moom mooy appel mu des pourvoi en cassation su nekkee ne nag am na délai boo xam ne moom lañ ko may bu demee pourvoi en cassation bés bu gañee pourvoi en cassation bo euh, bés bu ñu ko gañee pourvoi encassation cassation forcément day fay xaalis bi bala mu delloo fréquence bu mu tëddee la jàmbur ndax yow da ngaa ñëw fekk nit yor dara nga ne ko jaay ma lii mu ne la temps laa la ko jaayee. nga yëkkati loo xam ne matul genn wàll nga jox ko muy xaar beneen genn wàll ba ay ata ngi nii ngay liggéey chaque jour mu lay gis ngay dugg ci oto yi neex di yor ay dem tëti matériel yu sophistiqué di doxee nu la neexee te yow mënoo koo fay xaalisam kooku am na sañ-sañ dem ca tribunal fa ba ba mbaxana doonee benn portele fa ñu juge ko yoonu nguur gi nekku ci yoonu impôt nekku ci moom problème am day mel ni penda nga yoreel xaalis na dem ca numtati fa yoon doonee benn daal di fay def li nga xamante ne moom mooy plainte am kon nag may mu ndax teleem bu këppoo nekkul état ko war a jàppale wala ba ñu koo jàppale ne nekkul état ko suuxal war a war ñu koo suuxal nit la yoral xaalis nit la yoral xaalis kooku yóbbu ko ci yoon gañe nañ ko première instance gañe nañ ko barki démb appel léegi nag des na ci moom ba xam day prouver day dem en euh, pour day daf koy yóbbu nu mu tërati euh, ca ca cëppaandaw ga moom mooy pourvoi en bu demee pourvoi en ñu tëj ko fa foofu moom mooy cëppaan ndaw lem nañ yëpp te teg soit day fay soit mu delloo fréquence su télé. le cas Abdoulaye Sylla. le cas moom ak waa ITV la amal problème dégg naa membre Ibra Kane euh, génn <laughs> non l' intelligence man loolu sa sama mais hors de moi il écrit l'homme d'affaires Abdoulaye Sylla Ecotra et ses nouveaux maîtres. qui sont ces nouveaux maîtres veulent liquider le groupe fi euh, nu immédiat abus de biens sociaux dites-vous euh, faux Euh, mu ne adepte du porte-presse votre projet ne passera pas nit ki yëkkati 2 milliards am jox la ngay liggéey te joxoo ko 100 francs Mali moom ba muy neex laaju la ko parce que moom ci boppam mu nga doon neexle mu dem ba neexalatul ndax dafa daanu laaj la xaalisam nga naan ko projet bi ngeen am ak seen nouveau maître yi kan mooy nouveau maître Abdoulaye Sylla et d'abord qui est Abdoulaye Sylla D'où vient Abdoulaye Sylla? D'où il tire tous ces milliards et ces millions qu'il distribue de partout? yow Mamour Ibra Kane Dj Boubs ak keneen ka naka la tuddati sax seen salaire journaliste Alassane seen salaire journaliste dafay mën a taxawal structure bu immédiat boo xam ne en moins de deux ans yor seen matériel yu sophistiqué di liggéey ñun tamit ñu ngi raam ndànk-ndànk yor suñu projet xam nañ média ñu muy demee est-ce que loolu mën na nekk ngeen am seen ligne éditoriale boo xamante ne régime bi passé bi mu fi nekkee soo leen am projet am problème déjà moom mi mu ngi doon wax ci point bu important te man bëgg naa nguur gi fi nekk actuellement taxaw ci presse bu fi jug mun ku nekk mun na laa jàppale sauf homme politique man pour man homme politique warul bokk ci ñoo xam ne dañuy financer presse. Mm-hmm. ndax ku la amal ku la abal. gën wax la fi ngay xool forcément mu orienté. qui dit le quand on parle de journalisme on parle de liberté ah, ay accord commercial nag mënuñu koo ñàkk di la defal ay publicité te homme politique nag moom lu ko lu bëgg ku def propagandam la bëgg mm-hmm. kan mooy fësal ay mbiram ak leneen ak leneen ak leneen ñooñu waruñu leen seetaan ñuy financé li nga xamante ne moom mooy presse kan moo xamoon ne fii Ablaye Sylla moo nekkoon ci ginnaaw ITV kenn xamu ko woon léegi tey nag bi leen kooku laajee xaalisam ndax cëram tooyatul ñu ne non non léegi loolu léegi fi mu toll nii ci seen naafeq ñoom ñu ngi bëgg a wéer loolu état bi pour ne fi mu toll comme ITV nekkul ci nu mu tërati ci ci même euh, kii ligne éditoriale bi xam naa dañ koo bëgg a nu mu tërati faagaagal. ndax quelques phrases yi nga xamante ne yëkkati ko moom ay phrase am bu mënoon daaneel gouvernement bi dinañ toog fii ñu toog nii tey. gis nga man intelligence fumiste fumisterie da kii euh, nu mu tërati mam yi day day tuur sama xol. man bëgguma nit ku naafeq gis nga boo defee say njombe ba pare assumel na say njombe la bu ko jël wékk ko keneen mun naa comprendre wal fajiri mun naa comprendre keneen ak keneen nga xam ne problème mu impôt la ñoom ñoom amuñu problème impôt nit lañ amal problème bu ñu paree teg ci ñoom seen problème kii Abdoulaye Sylla c'est cinquante that is the question c'est un homme aujourd'hui fenn rek lañ ko xàmmee que ne day fréquenter première dame d'où vient ses milliards et ses millions Abdoulaye Sylla mooy see xaw ma la. mooy see 50. mooy ki financé woon yenn influenceurs yi. yëkkati ay millions séddale ko fi jeunesse bi. Mm-hmm. pourtant euh, mami nous on a des milliardaires Serigne Boub c'est un milliardaire est-ce que tu une fois di séddale ay mille francs ki 200000 waxatuma la ak ay million est-ce que tu une fois. Mm-hmm. gis nga xaalis bu ñu liggéey dëgg. mami dañ koy respecté. Mhm. boo nee kan mooy Serigne Mboup boo demee tubaa Sandaga ñu ne la fii loxoom ak fi nga dem fee ñu ne la fii loxoom ak fi nga dem fee ñu ne la fii loxoom ak fi mais des Abdoulaye Sylla des des Dora Gueye et des d'autres et des d'autres milliardaires yi nga xamante ne ñoo fi nekk c'est sur le régime de Macky Sall ñoom ñi nga xamante ne ñoo doon ànd ki nga xam ne moom mooy Marème Faye Sall foofu après loolu lañ leen xamee ñu dee personnes yoo xamante ne ñu leen neex la ñuy salfaañe milliards dëkk bi. déjà moom bu liggéeyantee problème ak ITV ba pare man bëgg naa ces genres de personne la que l'État les audite et nous montre où est-ce qu'ils ont tiré ces milliards là ndax man gëm naa ne bu ñu seetee ba ci digg ba. Mhm. fekk fa boolu askan wi tegu ñu samp ci seen loxo. d'accord ndax alal goo liggéey. Mhm. doo ko fooyee. man nay naa sax lekk xaalisu jotaay justice parce que damay xam lan laay daj pour jot ci. Mhm. y a des yoo xamante ne mami Mm-hmm. dañ ko war a dépasser. Mm-hmm. kon ce qui veut dire aujourd'hui cet état là li ñuy xaar si ñoom dafa bëri mais que may mën a nduur et que nu mu tërati ki nga xamante ne moom mooy waa ITV nañ lijjanti seen problème personnel yi nga xamante ne am nañ ak ay nit que que ñu koy jël di ko laxasoo ci impôt yi bëgg ne état bee daaneel seen i presse yow sa presse daanewul bi fi état nekkee nekkutee woon yaa ngi liggéey. Mm-hmm. tey ñeneen remplacé na la yéen ngi continuer di liggéey. seen moo leen ko may. te ñooy liggéeyal askan wi. dëgg la ñeneen ak ñeneen ñu ngi liggéey. seen crédibilité moo leen ko may. waaw gëm naa nag bu ñu nee ki nga xamante ne moom mooy Walfadjri mais dañ leen war a jàppale. mais loolooy dëgg. tëj seeni compte pour man dëgg-dëgg do ñoom tamit nañ respecté li nga xamante ne mooy kaddu yu ñu joxanteeg ñoom. Cheikh def na keroog ak poste de ci WhatsApp sa régime nee na sa régime est sans pitié Cheikh Niass. Ah, boo xamante ne c'est un régime ah. boo xam ne c'est sans pitié. ah ki nga xam ne mooy taalibe bi ci mbedd mi mu mun a bokk ak ascenseur ki nga xamante ne moom mooy DG bi ci bopp koñ bi ñun loolu lañ doon wër moom lañ doon xaar loolu lañ bëgg. dëgg de. ndax boo demee Europe looloo fa nekk dangay gis ministre bu wàcc di dawal velo romb koo xamante ne ci bureau la jógee di dawal oto. yaay na ne ndax bu yàggee Walf du retourné au compte sa régime. <laughs> journaliste yi nekk faa am fulla ak fayda yow maam Birame Badji waaye ngay waxal kan moo koy retourné yow Moustapha Diop ngay waxal. yow kan ngay wax Pape Moussa Sow mi liggéey mi mi yeewoo fa nga xamante ne moom mooy Walf. wala Aïssa Diakhaté ngay waxal ak la grande Awa Diop Ndiaye. wala la grande ngay waxal. koy nuyu au passage. <laughs> ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu caaxaan ñooñu foow ñu foow gis nga Cheikh Niass lépp lu muy wax. moom la nu mu tudd moom la intéressé. am na ah, ah, ah, en tant que waaw en tant que quelqu'un qui gère sa boîte en tant que DG sa boîte. Awa Diop Ndiaye am nga.